ak mbokk ne moom xam nga lu yàlla bind la wàcce ko ci kaw suuf ci xaddis ba nee woon na bi ko sunu borom bindee te di ko wàcce ak mbokk dafa jooy sunu borom laaj ko mu ne ko damaa ragal ñu dagg ma mu ne ko léegi danaa la garanti ci ku la jokk ma jokk ko ku la dagg ma dagg ko ak mbokk doo ko nangu sunu borom wàcce ko ci kaw suuf bi ko sunu borom wàccee dafa digle ni nañ koy jokk tere lépp luy tegtale ak dagg wala lu koy yàq. yonente bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñun joxe ci ay misaal ci digganteem ak ay bokkam waaye waxuma la ay bokki deretam waaye bokki nàmpaaleem ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole loon muy loo xam ne war a war la ci képp ku ko jokk rafetal ko sàmmonteeg la nga war a sàmmonteel jëfe nga ndigalul yàlla waaye am na lu la ci yàlla dikk te mooy àjjana waaye ku ko dagg wala nga ñaawal ko maanaam mooy nga yàlla waaye am na lu ci yàlla dig te mooy mujj gu ñaaw wala ayasu billah mujj gu rafet gi yàlla digle ci jokk bokk nag war naa tax kenn ku nekk góorgóorlu ci jokk bokk mujj gu ñaaw gi nga xam ne it mi ngi mi ngi tëkkoo kii dog ak bokk ak koy ñaawal war naa tax kenn ku nekk di wattandiku maanaam lépp luy ñaawal ak bokk te yonente bi alayhi salaam dafa wax ci hadis lu am solo ku bëgg yàlla yàkkali sa wërsëg guddal saw fan nee na del jokk ak bokk ndax ci la ko suñu borom def te doomu aadama yëpp nag amut kenn koo xam ne bëgg na am xat kenn ku nekk bëgg na wërsëgam yaatu amut kenn koo xam ne bëgg na euh, aw fanam gàtt kenn ku nekk bëgg na fanu gudd kon solo sa dëgg-dëgg mooy ñu fexe ba di di di di jokk ak bokk ngir suñu borom mën a yàkkali suñu wërsëg waaye di jokk ak bokk it ngir suñu borom mën a guddal suñuy fan kon loolu am am solo la jamono ji nag moo toll foo xam ne dañoo am ay ay ay crise yoo xam ne crise des valeurs ay valeurs yoo xam ne ñàkk guñ ko ñàkk moo tax yu baree bari tàmbali di gent nga xam ne di dem ndànk-ndànk kenn gisatu ko yooyu nag da caa bokk maanaam jikko yi nga xam ne lislaam dañu ko indiloon te doon ñu ko sàmmloo loolu al uxuwa da cee bokkoon muy ak bokkoo saxaaba yi waxuma la waxuma la bokkuk dereet waaye bokkook lislaam gi leen yonent bi doon boole rek àggale woon na leen ci ku kum ne la mooy sa bokk nga nangoo xaaj sa alal ci digg bi jox ko la gën a jafe sax kuñ ne la kii mooy sa bokk te amul soxna te nga yor ñaari soxna nga nangoo yeewi kenn ki nga xam ne danga koy bàyyi mu xool kam bëgg ci ñi nga yor nga yeewee ko bu idda jeexee mu jël ko ngir rek sàmm bokkoo googu dox seen diggante loolu nag mooy dëggi dëggi exemple bi bi gën am solo ci sàmm ak bokk ci li nga xam ne saxaaba yi joxe nañ ko ku ku góorgóorlu ci loolu nag wala nga bàyyi ko xel jëlal naa bokk deret gi nga xam ne yàlla boole na la ko say mbokk da nga rafetal sa kem kàttan sa diggante ñoom